Diourbel laa ne El Malik, li nga xam ne fi concerner département de Linguère mu jukki ci waxtaan ci tuuti li tax ma def ko bëgg des ba keroog waaye surtout mom El Malik, di siéger ci gouvernement bi dafa bokk ci ñi xam référentiel bi bokk ñi ci liggéey ba nu ko présenté rek war na ko mën a wala au moins mu présenter nu méngoog loolu mais li ma bëgg waxtaan tey dinaa ci wax loolu dinaa ci am tuuti rek lu ma ci coof waaye tey dinaa waxtaan politique nag ndax biñ dooree ba léegi dañu ne dañuy waxtaan ci thématique mais bu ñu fàtte ne ñun avant tout li ñuy def politique la El Malick dafa am lu mu wax léegi muy loo xam ne lu tiis la ci Sénégal lu ñaaw la ci Sénégal lu ñu mënul rafetul la mooy tey au vingt-et-unième siècle fii ci Sénégal am na ñoo xam ne mbiru waaso ak mbiru xeet la ñuy politiquer loolu lu ñaaw la buñ ko waxee lu ñaaw la buñ ko waxut lu ñaaw la mbir mi nag il faut ñu koy laal buñ ko bëggee régler maslaha bi dafa ëpp ci réew mi boo waxee ñu ne wax na lu ëpp man nag xam ngeen ni dafa am nu ma yàlla binde man gisuma lu fees sama bët bi te bëgg carte électeur u nit du tax mu wax la lu dul dëgg réew bu ñu bëggee muy dox il faut nit ñi di waxante dëgg waaye politique boo xam ne laloo ko lu dul dem fekk ay nit naan leen ñii dañ la bañ parce que bokku leen xeet wala ñii dañ lay xeex ndax bokku leen xeet kooku politique la boo xam ne politique de caniveau la te diggante zone bi jëm kaw depuis ay ati at at daf fi gis nga Sénégal ci juróomi at yii président bi Bassirou Diomaye Faye la tudd waaye incha rabbi Pastef fii ak at yu bëree bëree bëri moom mooy téye réew mi doxal ko parce que ñooy wax dëgg ñooy def dëgg ñooy jub di jubal di jubbanti te loolu la réew mi soxla kon ku ñuy naxee loolu ba nga jàpp ni ñii fi nekk lii ak lële ñu ngi lay sonal di la teg duñ la warut teg parce que nguur moom moom responsabilité defal réew mi defal waa réew mi kenn ku ne ci activité bi ngay def kuy napp wala kuy sàmm wala kuy bay wala ku nekk ci industrie kenn ku ne ci li nga soxla ci service sociaux de base muy ay hôpitaux di ay tali di ndox di courant wala école yi xale yi di jànge wala université yi loolu nguur rekk moo ko mën a defal nit keneen mënu koo def donc politicien bi ñëw di la seet donc rawax si dolli ni moom bi muy ñëw tey opposition la nekk bu doon am na lu mu randal denc koy léegi mu ruus ndax bu koy génne sax day làqatu di ko génne ngir bañ ñu dal ci kawam kooku bu ñëwee bëgg laa féewale ak nguur naan la ñi dañ laa bañ tey kuy sàmm vol de bétail mooy sàccum njur mi kan moo ko mën a xeex du état est-ce que amul fii ndax nekkul problème fii te ñun di dinañ ci def lu ci kenn deful nag ndax ñu ngi examiner sax possibilité taxawal brigade spéciale boo xam ne mbirum sàccum njur rek lay liggéey pour mu jeex ci Sénégal définitivement. kon kii di bay baykat bi pour mu bay kan moo koy jox jiw du état ku koy jox engrais du état gannaaw bu bayee ba pare kan mooy organiser ne prix bi li ñuy jëndee euh, gerte gi wala leneen ak leneen nangam lañ koy jëndee. kan moo koy yóbbu Sonacos ñu ñu defar ko fa diwlin kon état boobu naka la ñu a ñëwee di féewale nit ñi. ak état te teguñu ko luddul ci bokkook mom xet te fi nak ñepp fi bokk xet de man sama mam bi ma jur bi jur sama yaay ulay saw la tudd dekk njaayen pendaw kenn mënuma genn ci xetu kon nit ñi ño wara yewu sen yewu bop yag na len wax depuis 2019 bi may nek candidat élection présidentielle dama dem bi Bignona gi ma dekk man len bu ngeen ni votel Ousmane Sonko du ngeen ko votel parce que bi Bignona la de du ngeen ko votel parce que doomu dekk bi la waaye da ngeen koy woteel parce que yaakaar ngeen ni jub na am na xam-xam bëgg na réew mi te suñ ko ko dénkee mu defar ko noonu la ñuy choisir président ah ki fi nekkoon président def na fi ñaata 12 ans lan la def Jolof lan la def Fuuta lan la def Fatick kon loolu rek war na yee nit ñi lii nag boo gisee ñu ciy wax ñun ku wote pour ñun ak ku pour ñun la ñu yemale état bi su li mu war a def fii ci département Linguère bu ñu Linguère voté loon 2 pour cent sax du tee li ñu def dinañ ko def ba mu mat sëkk parce que loolu mooy responsabilité état bu la jiitalee da ngay jël de la hauteur ñoom ñoo moomoon ku àndul ak ñoom ñu téye budget ne du ñëw foofu xeex maire bi fa ne mais ñun xamuñu loolu kon li limi màndargal nag mooy xeetu politique bi ñuy def ñoom dama wax dinaa wax tuuti ci politique li ngeen gis bi ñu toogee ñun ba léegi juróom benni weer gars yi ñu jëfur takk rajo yi taal tele yi suba ak ngoon wax bu bon bu ne ñu wax ko yàlla xam ne ñii dañoo am sens ñii dañoo am sens boo gisee nag jël seen lépp focaliser ko ci Ousmane Sonko parce que dañu xam ni man duma koo xam ne sama moroom dina ma fontoo ma bàyyi la ci xaw ma loolu du ma tooñ nag man du ma tooñ kenn du ma sa dégg ni tooñ naa waaye nekk ak say moroom bis bu ne ñu xëy na ñu ngi lay tooñ nga seetaan leen ci loolu ci ñàkk fulla la bokk ci ñàkk fayda la bokk parce que daf ci am ñoo xam ne ngeen jégal ma ci kàddu gi ay mu rek arrêté arrêté Pastef ñu résister pendant dix ans mënoon nañ def ni ñeneen ñi def bàyyi gaay taxañ ñu kon et je lance un appel à tous les patriotes un appel à la mobilisation bu leen tooñ bu leen saaga bu leen xosi leen ko ku leen mbéj mbéj leen ko man li ma waxoon démb laay wax tey bu leen neexee ñu ne kii bëggul jàmm waaye jàmm boo gisee États-Unis ak Russie ku nekk di moyetu moroom xam nga lu tax parce que kenn ku ne xam na ni moroom am na bombe atomique te su ma ko dóoree mun na ma ko dóor lool la ñuy wax l'équilibre de la terreur waaye ñii nga xam ne juróomi nit topp leen ñu bëgg a réew mi parce ñoo yor rajo yi ñoo yor télé yi buñ leen ci seetaanee war nañu xoolaat suñu bopp li ñu dëgmal nag élection la ñun li ñu woote ci réew mi ñun opposé wu nañ pendant des années est-ce que mus ngeen ma dégg ma saaga mus ngeen ma dégg ma attaqué vie privée jàmbur mus ngeen ma dégg ma wax lu ñaaw ci nit assemblée laa doon taxaw ne sàcc nañu xaalisu réew mi àndi samay preuve assemblée laa doon taxaw ne pétrole bi ak gaz bi def nañ ci lii napp gi def nañ ci lii loolu mooy politique mais seet leen ni xew léegi ci réew mi foog ngeen ni loolu jaadu na moo tax ñoom dañoo jàpp ni comme xam nañ ni duñu am dara ci élection yi ñu ne kon nañu xajamal mbir mi ñoom ñoo ta ñoom pour ñoom ñun ñoo takk càq bi donc comme borom caq li olof di borom caq du xeex ak borom baatu neen ñu ne kon nañu xajamal mbir mi nañu provoqué nañ leen attaqué suñu defee seen caravane nañu fexe ba ñoom ñu provoqué leen ba sénégalais ne ñoom ñëpp a yem foofu lañ jumee nag gis nga buñ ko continuer dinañ leen duma duma yu leer naññ ci terrain bi doga dem ci urne duma leen fa duma yu leer naññ parce que sénégalais yi xam nañu mën nañu ragné mën nañu xam kuy togn ak ko am deug kon mbokki dara jolof yéen la koy wax diko wax toute la jeunesse patriotique du Sénégal notre révolution a commencé te gannaaw yalla gis mu lu koy té réew mi dinañ ko defar ba mu ne cocc dinañ ko jubbanti ba mu ci yoon programme biñ leen andil mën ngeen comprendre mën ngeen lire xam ngeen ni lii ñu leen andil buñ ko doxalee fii ci Sénégal fii ak 5 ans fii ak 10 ans gëm naa ni ça pour vous les jeunes parce que ñun amatuñ ci mbir mi ah. suba ba jot yéen yéen tax ñu sonn parce que yéen yéen a sañ ci kër wala su dee jigéen yéen soxla borom kër yéen a war dépense kon kuy bëgg a defar Sénégal yéen la koy defaral moo tax yéen a war a jiitu ci combat bi bu leen kenn détourné te campagne bi mu door rek léegi nag li mu wone dëgg dëgg dëgg mooy l'échec d'un système ak li ñuy wax les médias mainstream mooy seeni journaux seeni télé seeni rajo ak li ñu dencoon ci ay milliards te gannaaw bu ngeen ñu joxee assemblée nationale nag ñoom ñëpp dinañ jaara

inventé ay mbir suñu xëyee ne way Casamance nii suba ñu ne Sonko ki Diomaye ngi doon xeex pale gannaaw suba ñu ne déedéet li ñu wax ci bor bi amul yéen yéen a war a doon les gardiens et déjà mais dama bëgg ñu yokk ko parce que révolution fu mu sa am rek demal xool Chine fi ñu nekkoon yaa a 40 ans y a ak fi ñu nekk tey demal xool Corée demal xool feneen ak feneen révolution dafay am ñu koy garder du du xeex naa rek ba jox réew mi diw pare naa ci maa ngi dem toog waaye da ànd ak moom bés ak bés tànkam sa tànk ngay saytu lu muy def waaye noon bu ñëw moo xam noon bu jóge bitim réew parce que bëri nañu parce que fu ñu bëggee yóbbu réew mi ci moom suñu bopp ci souveraineté ci jëlee fi nooteel ci jëlee fi nangu suñu alal réew di ko yóbbu bitim réew loolu neexul ñu bëri ci waa bitim réew te suñu mënoon pe su pexe bu ne nag ñu ngi koy lal pour loolu bañ a antu la leen arrangé mooy ñi leen fi toogaloon lu ñu bëgg ñu signé leen te loolu jeex na ci réew mi. waye nonu dafa am ñi nga politique bi yépp moy sen poste ak nu ñuy def ba accaparer les ressources de ce pays gis nañ ni lolu nous waye neexu bëgg ñan ño les gardiens de cela moy le peuple sénégalais et particulièrement cette France jeune qui représente plus de 70 du peuple sénégalais nak pour mu am nous ni am ngeen ko ba nopi ragné am ngeen ko ba sénégalais bu ko yee taal rajoom lu mu dégg ci rajo bi rek jàpp na ne lii dëgg la mais li xew ci campagne bi xam nga lu mu firndeel mooy sénégalais dañuy toog di seetaan télé benn waay di wax a wax wax ku nekk toog ne waa jee mën a fen waa nag foog na ni moom moo fi mu ne nii convaincre na sénégalais yëpp mais campagne bu jotee waa ji génn yéeg ci kokk kaw otoom tàllal loxo gisul ñetti nit war na xoolaat boppam ràññee boobu laa bëgg ngeen am ko parce que dañu nekk ci jamono démocratisation de l'information Sénégal ba 1985 1987 benn télé moo fi nekkoon benn rajo benn journal doyen Habib Sy xam na li may wax tey nag waxuma la télé waxuma la rajo waaye kenn ku nekk ci téléphone portable bi mu yor bis bu ne bu connecté dina gis téeméeri nit ñuy def live dina gis téeméeri nit ñuy bind waaye dama bëgg ci loolu lépp ngeen di ràññee ràññee bi mooy ñi ngeen wóolu ba jiitu leen jiital leen teg leen ñuy liggéey na ngeen leen par rapport ak ñom les actes qu'il pose nat len par rapport ak li ñi waxtaan ak yeen te baña deglu ñi nga xam seen gemmeñ fi ni day nàcc motax tax mënatuñoo wax jamm lool la bëgg ci yeen c'est cette conscience très forte qui sera la première protection et la seule protection dont la dont a besoin le projet est-ce que par ngeen pour loolu la ci des nak fi Dara Djolof fi département de Linguère le tout li may jukki ci programme bi dama koy yóbbu ci li malik wax léegi muy cham gi cham gi dafa am ben filière bu am solo ci 20 filières yi ñu développer muy filière bi nga xamné parce que cham moy loo xamné ne amoo sanni sànni ah amoo sanni, sànni der ko sànni ndawal gi doo ko sànni waaye meew bi ci boppam ñep xamna liñ ci mëna def kon lool rek mënoon développer pôle bi ndax ñep xamnañ ni capacité bi am fi ci élevage néew na mu am fenen ci Sénégal motax agropole bi El malik wax di nga filière cuir peau et lait et viande muy ñent mom lañ ci gëna bëgg développer lu mbay mi parce que mbay mi amna également ñu agriculture So gisee biñu ñëwé tok dañu né sénégalais yi nañu constater di ministères yi mu Sénégal am ay ministères parce que kenn ku ne bëgg nga ko satisfaire ñu ne kon nañu dajale ministères yi moom mii El Malick Ndiaye ministère bi mu yor balaa muy ñëw ñetti ministère la woon ndax infrastructure teres aéroportuaire loolu yëpp nga dajale ko ci benn ministère loolu gëj naa am Sénégal noonu lañ ko defee ci beneen ministère ak beneen mais ñëpp xam nañ càmm ak mbay dañoo ànd la ñuy sàmmee day jëriñ jur gi waaye li jur gi di génne ci biiram day jëriñ lañuy dañuy day jëriñ day jëriñ également baykat bi donc la ñuy bay day jër jëriñ kii et cetera ñu ne kon lépp lu jëm ci mbay mi ak càmm ji logique la ñu boole leen mu doon benn ministère te loolu du guléet ci Sénégal doyen Habib Sy xam na li may wax ministère de l'élevage et de l'agriculture yàgg nañ ko boole kon naka la nit di ñëwee fekk ay baykat naa leen waaw dañoo contre mbay mi moo tax gis nga génn eh, dañoo contre càmm gi moo tax génne nañ ko ci ci pôle boobu nag wala ci filière boobu tey suñuy cordonnier ñi nga xam ñoy def dal yi ngaay ñi nek ndakaaru village artisanal ak fenen ak fenen même boudé amnañu am dergi fi dañuy obligé diko envoyer Italie pour ñu traiter leen ko ñuy doga dello ci derbi fi pour ñu mën ci liggéey lolu mënul artisanat or artisanat c'est l'un des secteurs les plus importants qui pourvoit beaucoup d'emplois qui pourvoit beaucoup d'emplois mais amuñu cette matière te mu ngi ci Jolof mewmi lañuy importer ay centaine de milliards la ñuy importer par année ci meew te su doon meew naturel sax mais meew synthétique la meew yu bëri yi ngeen di naan fii xam leen ni du meew dëgg dëgg dëgg bu ngeen ko dajjee dugal ci kaas yëngal dañoo jël tuuti ci meew la ca des ay produits synthétiques la moom lañ ko defaree loolu mo am na ci xeetu meew yoo xam ne sax dëkku tubaab bi dañ ko fa tere te ñun bis bu ne moom la ñuy ndekkee kon te boobu jamono fii ñu ngi fiy tuur meew parce que amuñu des unités de conservation bu nit banopi, raté ba noppi meew dafa gaaw a dafa gaaw a way bu wayee tam dafa gaaw a forox donc soo amul ay unité de conservation mënoo ko def dem leen ngeen xool lan la wax ci programme bi te nii ma ko waxee incha lañ koy defee fii ci ñaata ñaata milliers d'emplois lay créer pour vous les jeunes de ce pays kon vision bi leer na dafa leer nañ équipe yi am nañ ko ndax a fal président muy presque seen masse di président boo xam ne c'est un président jeune dynamique am na xam-xam ngeen jiital mu jël premier ministre teg ko sama loxo ñu defar gouvernement boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko lan moo ñu manqué mooy ngeen jox ñu assemblée nationale pour ñu mën a voter loi yi ñu war a voter loolu mooy objectifu fi ñu jëm nii am na ñu wax léegi nag ni Daara Jolof Linguère département de Linguère yéen da ngeen am benn bor boo xam ne du ñun ngeen ko amel de Sénégal ngeen ko amel parce que nak fa ñuy defaree réew kenn ku ne war nga fexé ba ne kenn nous. kenn fa am nak ñu am avance bu béré béré bëri parce que projet PASSEF dafa commencé il y a 10 ans 2017 nous avons commencé gagner nos premières communes 2019 ñu ñëw 3 troisième élection présidentielle gagner ay départements gagner ay communes 2022 élection locale élection présidentielle 2024 élection présidentielle yooyu yëpp jamono bu ñu toll rek am na ay communes yu ñëw yokku ci am na ay départements yu ñëw yokk ci waaye ba léegi dégg guñu département de Linguère moo tax nag comprendre nañu yéen ñi nekk fi taxu leen ma wax de su ngeen con su ngeen amul conviction ci projet bi du ngeen doon toog fi ba bi duñu xaar mais li ma bëgg mooy ña nekk ci biti nekk ci kër yi nekk ci marché yi nekk ci gare routière yi nekk ci village yi gën a reculé nous laa bëgg jours de campagne yi des ngeen dem jëli leen ngeen dem waxtaan ak Nous ngeen dem déconstruire li nga xam ne nga am projet ni programme pour le Sénégal moom la ñuy dem foofu di leen c'est ça l'enjeu Ça, leen ma man li ma bëgg rek moy ñaari député yi nga xamné moy député département bi dama bëgg mu doon des députés de Pastef ba ñay taxaw assemblée nationale difa fa waxal Linguère mu doon wa Pastef parce que xam ngeen lan moy logique gu Pastef def len ko nak muy xaré nañ ko def benn yoon mais il est impératif que département bi ñu gagné ko. la ci dess moy jëli carte électeur yi continuer campagne bi mais bésu vote bi na ngeen teel a Boule leen ne élection bi c'est moins important que élection présidentielle c'est tout aussi important sinon plus important kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di